ay tamb ci wàllu environnement àllu Kolda bi nag du jógee ci rek tolof tolof su ñi nga xamee ni euh, dañoo seetlu ne bu dul daay yafaa takk léeg bantu ven bi nag ñu kaa sàcc mu lëmbee fa lool tax nag jëwriñ gi nga xam ne moom moo joxe environnement écologie ak protection de la nature Ali ay Aydar ci jëmi boppam sol nag ay dàllam daal di dem ca département Médina Yoro Foulah ngir rek saytu sàccup bantu ven boobu fan lan ci tollu ñu ànd ceek Bokar Kandé ci ay leeral. groupe Sénégal bu bees bi dafa yittewoo lool gestion équitable de ressources naturelles maanaam ni ñuy jëfandikoo àll bi te bañ ko yàq moo waral nag njëwriñ bi ñu dënk wàllu environnement bi maanaam jaww ji ak lépp lu ñu wër ci niñ koy aaree ñëw fii ci Kolda nag nemmeeku yàq-yàq yi ci àll bi ca bi muy dem nag ci gox yi nga xam ne fa la ñu gën a nemmeeku jëfin yooyu dafa njëkk gis ab daay ci wetu Fafakuru ci loo xam ne nag lorange lay indi ci àll bi gannaaw loolu nag Ali Aydar dafa jublu rek dem ca bajon ak Saare Moussaël ca département bu Médina Yoro Foulah ci la yëkkati nag kàddu jëmale ko ci askan wi. ñu seetaan ko ndaareen muy tàkk ndaareen di hubba ñuy gor di soppee ñuy yàq di yàkkee xale yi bu ñu màggee xale yu ndaw yi bu ñu màggee sukaaɓe si mawni lan lañ fi fekk ay hunde ɓe tawata ɗon mais toujours ma wax leen ko ɓooyi haalande soxla kuy talaski kala cohluɓe layya moo tax l'islam tere ku rey xar bu ëmb ko ɗum wiya l'islam sali yimɓe mbara mbaalu tawɗi tumbi mais loolu yoon la pour won ñun ñul dañu war a aar alam ji. fii ci Saare Moussaël ñu ngi ci frontière Sénégal ak Gambie ñu gis ci beneen boor bi ay bant yu ñu dajale di ay bois de vène ci bërëb bu war a toll rek hectare di ay bant yoo xam ne nag ñu ñu wax njortu nañ ne Banjul lañ leen di yobbu jëmale leen ci réewu asiatique yi ñu gis trafiquants yi toog bañ ci am benn kersa wala saa di tiit. dépôt yu mel ni yi ngeen di gis war nañu ëpp ñaari fukki ci frontière bi di ay bant yu ñu dagg ci Sénégal mooy daal li ñu askan wi wax ñu fàttal ne rek ci weeru août bi weesu jàppoon nañ lu ëpp juróomi fukki nit ñu dugal seeni loxo ci traficu bois ci ñooñu nag bokkoon ci ay élus yu Sénégal lii tax rek ba ñuy xalaat askan wu senegal yu dëkkee ci frontière bi seeni bopp daal reerul ci mbir mi di mbir moo xam ne nag njëwriñ bi wax na ne dina ko exposé ci daje bi ñu amal ci ci wàllu gestion durable des ressources naturelles laata loolu nag taxawal lu ci gox bi ay kuréel yu war a sàmm àll bi